compagnie soxna Thiaba moo doon nuyoo noonu di wét beneen ci jotaay li waaye laata ma si dikk ak ñoom ma jaajëfal bu baax ñi fi nekkoon ñu wutu leen ci toog yi kenn ku nekk ak la ñu ko dénk mu teew ngir jéem a matale ngir suñu mbégte téléspectateur auditeur ak internet Walfadjri ak équipe petit déjà àndoon seeg soxna Fatou Kapoulo waaye équipe Thiamas Show jaajëfal ko moom Thiamas Thiam Babé Demba Thiam borom nee ni waas doomu yaay séena bu mbergaan ku mën tooñ si kanam <laughs> si bi tabarkàlla baara mën na lu ne moom tam <laughs> ñu jaajëfal ko waaye jaajëfal ko itam bu baax si ni nga xam ne euh, noonee la delloo njukkal sargal ku mat a sargal ku mat delloo njukkal koo xam ne lu mu liggéey Sénégal lu mu liggéey si musique sénégalaise lu mu liggéey si musique africaine yaakaar naa ni monde entier wax la Sénégal Afrique moo ko nangu mais ñëpp nangu nañu ko moo tax ba ñu yëgee li nga xam ne moom moo ko dal wax dëgg yàlla ñëpp ànd ak moom si loolee di ko di di ko di di ñaan di kenn ku nekk yaa ngi def ay ay ñaan moo xam yaa ngi wérd moo xam bépp xeetu ñaan boo xam ne euh, si sa sa diine may na la ko rek yaa ngi koy ñaanal pour jëmm ji euh, baatam euh, daal di dikkaat ak moom parce que baatam moom la yaakaar gannaaw borom bi subhanahu wa taala ndax si loolee la nekk mooy la première mm. chanteuse moderne si euh, musique moderne fii si Sénégal bokk ñi si ñi xàll yoon wi ndax ku ñeme dañu laa dee ba tax tout tànk yi euh, jigéen ñu bari daal di si soobu ñeme ko nag bu baax a baax kon elle a travaillé pour arriver fi nga xam ne fii la agsi son engagement humanitaire itam lu ma neex la lu ma euh, lu ma lu ma rafetu la album bi mujj génne muy terroir le Sénégal dans dans dans ses profondeurs jàngale aada ak cosaan jàngale lu bare bare cousinage bi jàmm ak salaam bi dellu siwaat loolu itam lu neex la ku ne xam na ne tànkam demoon na fi ba mu damm mu am loo xam ne daf ko tàmbali woon mu ne du ma arrêté dinaa continuer di ko def waaye nag voix leneen la voix yeneen instrument yëpp ay instrument lañu mais voix am tam instrument la mais instrument bu faible la waaye bu demee ba nga xam ne li ko dal dal na ko yaakaar naa day jafe lool ngir mu yëkkati li nga xam ne moom moo di euh, kàddoom kon xam naa buñ di continuer sax di wax dëgg yàlla dinañ wax lu bare bari si Kumba Gawlo ndax premier album bi mu génnee seytaane boobu gën naa nekk tout tànk waaye bokk na ñoo xam ne suñu ay suñu kër lañ nekkoon kenn kii mooy Lamine Dramé ñoom ñoo fecc clip boobu maa moom ñoo bokk benn papa kon HLM 4 Lamine Dramé ànd ak laay laay seen muy ab laay euh, muy laay ananas ñoom ñoo fecc kon clip boobule Euh, magu jàmbur Njoob jamono ji ma nga foofee ca Hollande ba may itam nekk otes nekk euh, sëñ Baara xale bu ndaw laa woon mhm. en 99 à 97 itam euh, set muy semaine nationale de la jeunesse Kumba Gaw la bokkoon na ci amal foofu loolu live ci stade boobu le xam naa mii mhm. naan fii boobu xam woon ne loolu mosul ko xam sax si man mhm. xam ne Lamine Dramé boobu ñoo bokk pap mosul xam ne itam ba muy nekk euh, semaine nationale de la jeunesse may nekk hôtesse moom tam xamu ko woon mhm. loolu itam gis nga gannaaw yàlla après animatrice bi si la daal di ñëw kon Kumba Gaw la wax dëgg yàlla yal na yàlla wéral baat bi gis naa Magay itam déglu naa ko li nga xam ne mooy témoignage yu am solo yi nga xam ne def na ko si ngay liggéey nit yëkkati ay kàddu yu rafet jëmale ko si moom itam ku baax nga ku ñàkk ñaan nga Magay nga yàgg ak moom di nuyu itam la grand Lay Diagne muy chef d'orchestre am nga xam ne sax tuddee na ko doom papay Anita kon yéen itam ñëpp ñu ngi leen di bégee bu baax a baax di kontaan ci yéen di nuyuwaale Matar Seck ak euh, ñoom day Fatou Seck ak suñu ñëpp ak fan ci soppeeku mba gawle yëpp yàlla na wér ak jàmm salaam ba mu siwaat na dañu ko soxla jërëjëf am naa mbégte bànneex daal di féggoo ak ñoom may jéegul nag bu baax parce que kuy wax ci ndaanaan bii foog nga waaw des na lu baree bari lu ñu mën a wax mais bon sëñ Baara maam mbig teg bànni daal feggu ak yow jenn baay Baara surtout Mbeng ak Aram Sarr doomu Louga doomu Njàmbur doomu Sénégal asalaamualeykum waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa soxna Thiaba mënuloo bañ a wax ci Kumba Gawlo ndax yow aar bi ak artist yi ñiy débuté ak ñi am talent sur et pur yi nekk ci réew mi yëpp da ngay liggéey ak ñoom di leen jàppale di leen defal seen promotion ku déglu samedi ci ngoon 14h. ni ngay animé. <laughs> da ngay xam ne sañ nga cee mën a wax li nga ci wax nii. yàlla na ko yàlla wéral moom itam ak euh, mboolem jullit bañ a tëral keneen. maa ngi nuyu ñëpp rek euh, ba mel ne As Thiam ca États-Unis mm. xaaritu baara jenn ca Paris léegi ma nga États-Unis As Thiam. Fara mbay démb la woon anniversaire am message na ma sax. Ah, ne ma baara sama kii bi de maa ngi wàccee kaamil xanaa da nga fi jaar. <laughs> lekk laax anniversaire mu nga yor kaamilam di jàng ci ah, anniversaire kon laax am na dundal téeméeri at laax am na ak euh, ceeb yi yàpp yu baax loolu laax laa wax man laax waaw waaw laax soow laaxu diwtiir laax soow bu weex waaw na des ak jàmm nga jël kuddu ku ne ñu beral la sa sa sucre ah. waaw looloo xew léegi nit ñi doo leen suukaral seen ay ñam dangay teg boo bëggee sukkar nga def boo bëggul nga bàyyi boo bëggee xorom nga xorom. léegi laax am nañu koy poobar sax léegi. Eh, eh, eh, wallaay fara kon dundal at yu bëri bëri bëri ñu ngi lay souhaiter un euh, euh, da nga tas yaakaaru jaamaas noonu li mu la waxal. ban veste. na ni. <laughs> Ah, démb démb veste naa. mu ñëw veste su tey waaw ma ma waaf dañuy ñëw. <laughs> et puis moo ne woon Saint-Valentin gëmu ko veste tu la veste. et puis moo ne woon Saint-Valentin gëmu ko mooy tey dafa ah, Saint-Valentin. voilà yow ah, mais couleur la rek. non dëggal ne weer wi yëpp la rek. ah non bien. <laughs> Eh, ñaw c'est bien et puis ñu ngi si février ba tey. et puis na ko mas. waaw euh, Mouba Dialli. moom Mass Chéri Ngoma doomu géejewaay bi borom li si dëkk bi ànd ak ñun si yoor yoor émission ba am solo bi def ko som ba mu baax mhm. caaneen daan nga wax ne diw moom a abiyee waaye veste bi boobu ba tey yaa ngi rangale ay veste tabaarakalla catuma la sama xaali yii na mhm. <laughs> euh, jërëjëf maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ah. euh, mhm. di la ziar euh, di nuyu aussi suma sama sama fils bi sama booy bi Serigne Bara ah temps yi sama booy la quoi ah. <laughs> di nuyu bu baax a baax aussi ma xarit ak <laughs> ah, xam dal na la sa Seydou maa ngi koy ziar bu baax <laughs> mais di nuyu Sénégal gi yëpp ah, nuyu Sénégal yëpp ah raw tàmbali ko ci kilifa diine ndax réew mi kilifa diine yi ñoo ko téye ci ay ñaan ba mu taxaw ku nekk jal ba nga jiit nag ñu la ñaanal baax a baax nga yàgg fi lool te wér mais aussi di bàyyi xel ñi nga xamante ne ndeysaan jamono ji ñuy wax ñu ci hôpitaux yi tëdd mbaa ci kër yi laati kaaf ñaan suñu borom aussi mu fëgg seen bopp ñu dellu seen activité ak caba ñi caabi féete ginnaaw mm-hmm. ñaan suñu borom aussi mu tegg leen nattu boobu ah mm-hmm. ba ndar aussi nuyu sama benn maire bu baax di maire Kodou euh, Ndiaye ah di ko ziar waa Ndar la ah mais du nuyu aussi euh, euh, soxna Mia Sow maa ngi koy ziar bu baax a baax di ziar sëñ Mactar Mbay sëñ Mactar Mbay di ku baax di ko ñu suivre nekk fële ci Sicap Mbao uh-huh. ak euh, imam imam Jim Lo ah maa ngi koy ziar ak Cheikh Omar Diop di ziar aussi ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan mais aussi yaay ju baax ak baay ju baax maa ne di ziar bu baax a baax a baax caba di wax na réew mi nañ woote jàmm uh-huh. xam nga caba jàmm ci la lépp xaj maa la ko te gis nga ci dëkk bu organisé maanaam état day gouverne opposition di opposé mhm. waaye diggante démb ak tey gis nañ fay arrestation yu bëri moo tax fa diine yi war nañoo wax pour dëkk bi dal parce que ñoom dañu am part responsabilité bu rëy ci réew mi nañu mhm. wax woote réew mi dal Sénégal am jàmb mhm. ndax maam Abdou Aziz Dabakh daan na ko def gis nga 23 juin dañoo teg kasetam ay parolam mu mën ni moom mooy wax réglé na li nekk assemblée nationale te ma nga bat ci loi booy voté kon tey ji yaakaar naa ne lépp ñi bokk réew mi li lépp ñëpp lu nekk da ci da ci nekk mhm. maanaam ñëpp nañu xool li intérêt senegal ñu tënk ci loolu caba mhm. Sénégal nag ci luy bax la am ruq bu seen am ruq bu seen mhm. mais dara bu bàyyi fàll ku ne am nga ci morso ah. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullaa gën gi nuyoo <laughs> gën gi fay dafa bay tiitar ak waane maas yow nga ma nag ma baal dégg waaw monsieur moom mi ngi noonu daal. jërëjëf <laughs> jërëjëf euh, ñu am mbégte itam ak bànneex di bokkandoo ak moom jotaay bu am solo bile muy kilifa moom itam euh, xam-xam ñu rafetlu ko bu baax a baax saa yëkkatee rek nit ñi dañuy duñu bëgg sax mu daal di euh, mu daal di dakkal wax ji parce que tabarkaal li muy wax dafa am solo yal na ko yàlla fal cat oustaz Seyd Diallo oustaz Seydou Diallo du Diallo Jiri Diallo Ahmadou borom Medina asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa soxna Thiaba maa ngi lay fay nuyoo. Mm-hmm. di nuyu fii kii di borom li ci dëkk bi. Ah. Euh, maa ngi nuyu sa fils ah. sa fils waaw Baara maa ngi koy nuyu. ah da nga ànd ak moom parce que comme da ko wax ci plateau bi weddiwu ko. ba dégg ko dégg ko. Ah, dégg ko waaw ah, kon man dama ko jot bi retiré naa li ma waxoon. maa ngi nuyu téléspectateurs yi <laughs> ñu mën a nekk ci àdduna bi. ndax caba euh, yow mun nga cu mun nga ca. man mii de. waaw man mii Dramé Ndiaye gis nañ ma pëtëxalee. ah dama la pëtëxal noonu. mi ngi ci plateau bi. waaw moom waxul inbox. waaw. en direct la wax. waaw sama fils. waaw sama booy. mais Baar dégg ko. dégg kon nag nopp ba mu dégg ko moom nee na dégguma ko yàlla xam na loolu débouché nopp bi parce que bu fekkee loolu moom li mu wax ni déggoo ko. dégg naa ko mais dégluwuma ko. ah dégluwoo ko comme fa tabaarakallaahu. yéen ñi nga xam ne fu ngeen mooy nekk ci àdduna bi yéen ñuy bàyyi xel. ñu leen di ñaanal jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla defal leen ko defal ko seen njaboot defal ko képp ku naan ashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan rasulullaah sallallahu alayhi wa sallam di ñaan bi barakati yaa salaamu yàlla mëmbëstal jàmm ci suñu réew bi te jàmm moom bu nekkee ci xol ne ci xel rek cër yi dañuy yomb ngir ñu mun koo jëf waaye képp koo gis mu def violence xamal ne xol ba violence moo ca nekk xel ba violence moo ca nekk moo tax cër yi ñoo koy traduire di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm ñu naal yi nga xam ne kilifa diine kilifa aada yàlla dogal na ñu naal ko ci sunu réew mi muy jëriñu réew mi jëriñu jullit ñi yàlla yàlla mottali ko di nga xam ne mooy Kër Massar uh-huh. kii di madame Tine waaw dafa nekk ci média bi di seetaan di apprécier parce que bu fekkee ne mbër moo ne mbër nga mun hmm. nga yaakaar ne mbër nga yaakaar ne waaye doo fëgg dana ne mbër nga hmm. nee daal seen plateau bi daal hmm. bu sañoon euh, heure bi mu gën a kii parce que nee na fi ñuy fi ñuy tàmbalee dugg ci waxtaan bi si la affaire bi di di di di di daggee te bu ñu dikkaatee te bu ñu dikkaatee du ñu continuer foofu la belle Sonia lalaat lu bees kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ci planning ak organisation ak planification mhm. defe naa ne euh, yéen li ngeen di wax ñi fi ne ñoo ko gën a xam mhm. te dañuy wax ne katax ba cax nga cax ci cawul woon doo cax dëgg la kon boo cawee nekko ca dëgg la ndax boo ko cawul ëllëg ba ñu di lay caw mhm. dootu ca ndax cawoon na la loolu olof la ndax ki la jox plateau bu ko neexoon bañ la jox dara dëgg la jox la trente minutes wala jox la quarante minutes. Mm. kon boo caa ne ko ca. Mm-hmm. ndax budul woom doo ca. Mm-hmm. kon ci cawam nga cawee nag. Ah. fexeel ba ca ko ca. Ah. balaa ëllëg ñu di la caw. Ah. parce que boo defee lu def wut. Mm. bés bu ñuy rëq sa ndig du téléspectateur du fans du kenn koo xam ne dina ñëw taxawal la kon lépp luy organisation planification mm. mun nga joxe xalaat mun nga joxe xel waaye ñi nga xam ne ñoo am diligence diriger li nga xam ne mooy liggéey bi saa su nekk ñu ngi dem ay sacrifice mhm. di jël ay million di ko ci def ay milliards di ko ci def ngir ndab seen bànneex kon daal ñun ak yéen la mhm. ba fële dëgg la incha allahu rabbi ah ba fële mooy fan fële hmm, mooy ah, mooy réussite day topp action ba mu sës ah, ah, damay laajte c'est une question qui mérite d'être posée ah waaw ah ba fële mooy objectif bi ñuy assigné émission bi yàlla émission bi hmm. dafa am fu ñu ko séntu. waaye ñun dunduguñ dara de. mooy fële. Hmm. wax ma feenee de. Ah. feenee mooy yomal xiyam <laughs> mais fële mooy émission bu fi nekk. am na objectif. jërëjëf lii moo tax ñu créé ko. lii mooy objectif yi mhm. ñii ñooy acteurs yi d'accord léegi ñooñu bu fekkee def nañ li ñu war a def dinañ mhm. yegg ci fa nga xam ne mooy seen objectif jeex na objectif yi mooy fële xam nañ waaye foofee nee mhm. yàlla dund ba am ay sëtaat sët d'accord ba am ay turandoo yu bare wallaay ndeysaan parce que amaguñu dara li Ouzin Keita naan defaguma dara waaye ñun tam amaguñu dara tawaarkàlla yàlla baax na <laughs> jërëjëf Oustaz Seyd Diallo jërëjëf sëñ Mass jërëjëf euh, sëñ Baara ñu jaajëfal suñu mbokk techniciens yi Adjaratou Penda Diallo Guèye Ndioro Basiko Alaaji Adama Jacques Gabriel Pereira ba tey mi ngi si koor gi di ko ñaanal koor jàmm ak salaam le grand euh, Pierre dañu fàtte euh, Babacar Lo Ndam Lo di nuyu Babacar Diouf a ñoo ko bàyyi l'homme de Niakhar Pape Samba itam naka noonu waaye Kéba Thiam laajugoo laajugoo seen waa kër nag Thiam Babé dem Thiam la wala Thiam Dogo da nga ko fàtte xanaa itam ñoom nañ la ko wax ñu tamit. ak Pape Daour parce que man bëgg di kii ah. Pape Daour ma ca euh, mooy Dieng. Kor Ramatulaay euh, jërëjëf ñu in ànd ak itam kam ka mat a àndal euh, muy Aquaterra di euh, ndox muy une eau minérale pure et légère mën a gunge njaboot gi si fépp foo xam ne ña nga fay dem moo xam si bu ñuy tàggat seen yaram la moo xam itam sa bërëb liggéeykaay ba boo xam sa kër ga itam ba si tuutànk bi ñuy war a defar li nga xam ne moo di biberon eau bu neex la te sell la wax dëgg yàlla muy eau Aquaterra mooy ki ñu gunge di partenaire bi mat a àndal ñu dem ba euh, Touba sëñ baar mhm. dem ba Mbacke Bawol ak ndaw la toogal rajo télévision Walfadjri ci diwaan boobule Mourou Matar Sarr gannaaw démb dañoo tegoon élément bi jëm ci euh, Cheikh Mouhamadou Fadal euh, sëñ Moutada. xale boobu nga xam ne bëkki démb am ñaari at ba mu demee ak léegi maanaam ba mu ba mu réeree. Mhm. wax dëgg yàlla doom doomu soxna tuuti Mbacke sëñ Cheikhouna Mbacke sëtu sëñ Modou Boussa Dieng sëtu Cheikh Mouhamadou Fadal borom Ndindeek Saam sëtu Cheikhul Khadim. 4 ans la amoon ci ba muy dem démb teg nañu élément bi tey jii ñu bëggoon euh, jokkook ndaw la toogal rajo télévision wala fàcc ci diwaan boobule muy nuñu si ay leeral euh, bu dee mi ngi ci ligne bi ñu jokkook moom Mamadou Makhtar Sarr. waaw Mamadou Makhtar. ñu ngi lay nuyu di la ziar tey jéggu nag bu baax a baax na xam naa liggéey rédaction bi mu ngi lay xaar waaye kenn du yow Sarr. mooy kooku mooy kooku tuuni bisimilah. encore bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy amal. waaw di la jaajëfal rek euh, laaj ak euh, li nga xam ne soxla ko mu jëm ci wàllum fànn moomu nga xam ne moo réer bu baax xam ne ñaari at. Mm-hmm. certainement allo ñu ngi lay dégg waaw. ndax yow yaa ngi ñu. voilà léegi kon. waaw kon nu ko waxee rek Serigne Fall moom. waaw euh, sëñ Mourtala. nga xam ne moom moo réer ñaari at. Mm-hmm. boobaak léegi mu ngi réer. suñu wàll la walla sa wàll fan la Mbàkke xanaa dafa ngelaw wala alxemes boobu nga xam ne ci la amee woon waaw euh, moom dañoo benn fan moo desoon ci campagne bi dafa am ajjuma ñu def ñu def campagne bésu campagne électorale bu mujj noppale samedi dimanche ñu voté mm-hmm. loolu ci élection deux mille dix neuf yi la mm-hmm. ñu gis ne nag boobu bu mu réeree ñaari at mu ngi nii euh, gisaguñu ko. Mhm. ñu ngi koy wër ay mbokkam ba léegi gisaguñu ko ndax sëñ Mourtala moomu surtout Serigne Fallou Mbacke la moom mhm. Serigne Touba Khadim Rasoul. Mhm. mu nekk nag mbir moo xamante ne jaaxaloon nañu bari fii ndax ñoom euh, njaboot yi nee nañ li waroon def yëpp def nañu ko waaye daal li ñuy ñaawlu ñaari at ci ren mooy. dafa mel ni état dafa am benn tànkamlu boo xam ne am na ko ci. loolu nag moo tax ñu naxari leen xaj na nijaayam. ki nga xam ne moo di Mouhamed Mbacke yëkkati kàddoom ngir ñaax kilifa yi ngànk réew mi ñu taxaw si nee nañu gis nañu ay mbir yoo xam ne xew na ci dëkk bi di taxaw nañ ci am na xale boo xamante ne réeroon na France barki Dembo Ndiaye. Mm. te gis nañu taxaw bi nga xam ne kilifa yi état yi taxaw nañ ci. ban xale la ndax mooy jaari saw wala benn xale boo xam. Matar yaa ngi may dégg. waaw muy jaar waaw maa ngi lay dégg. ndax jaari saw ngeen bëgg a waxal am déet. waaw te mbirum jaari saw la parce que boo xoolee nee nañu gis nañu mobilisation bi nga xam ne état defoon na ko ci. Mhm. ba ñu retrouver ko. Mhm. tey jii nag ki nga xam ne moo di xale am ñaar ñaari ñeenti at dong. Mhm. génnee ci kër di dugg ci kër juróom fukki mètre bëgg ne mes na menteng loolu moom moo leen jaaxal. moo tax ñu ne war nañ ci mën a ubbi ab enquête xool mbir ya bis bu mu xewee ak waxtu wa mu xewee parce que nee nañu xale bi yóbbul boppam. xale bi euh, képp ko ko jël da nga ko faa jëlee ndax ñeenti at dong lay war a am mhm. donc loolu daal moo nekk loo xamante ne jaaxal na leen ba bàyyi léegi yaayam nag ku gëm yàlla la ay maamam ay mbokkam ñu gëm mhm. yàlla lañ mhm. waaye daal lii ñuy di ñaan mooy kilifa yi taxaw ci ñu leeral mbir mi ndaxte kat dafa dafa dafa bétti lool ki xale bi nga xam ne ñeenti at dong la am bëgg na mes ne menten kenn gisatu ko ba bàyyi léegi am na ñaari at donc euh, ni ki bërki démb ci laa am ñaari at moo nekkoon ñax fan ak benn ci weeru février euh, ñuy wéy di seet seen doom ñi nga xam ne moo di euh, Mourtala di dippee comme maamam mu di sët ci Serigne bu Boussa Dieng moom Serigne Fall moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul si sa et puis Modou Matar euh, gis nga télé yi moom defoon nañ ci liggéey bu am solo rajo yi naka noonu ba si réseaux sociaux yi kenn ku nekk amal nga si liggéey bu am solo wax dëgg yàlla saa yi ñu yaakaar ne mu ngi war a feeñ rek parce que day am ay kat day ay nit ñoo xam ne dañuy jóg moo xam jigéen la moo xam góor mag wala ndaw yëkkati ay kaddu yoo xam ne boo demee ba si biir du mujjee fenn nekkul kaddu yu wér man gis naa si Muntala mhm. mi ngi fii mi ngi bërëb sàngam bu ko defee ñoom yaayam mhm. wala papam wala njaboot gi jege ñaale yi waaxu bërëb boobu lay duñu gis euh, jëmm joojul te itam euh, ministre joriñ bi ñu dénk wàllu kaaraange réew mi bi ñu ko dénkoon waxoon na ne tam dina si def kénti lay kàttan muy Aly Ngouille Ndiaye waaye nag gëm naa ne mhm. état continuité la moom nekkatul si bopp boobule am na keneen koo xam ne moom ko mhm. wutu nag kooku itam yéen ñu euh, la si mën a def ba gune gi dal di feeñ voilà comme nu nga ko waxee rek ndax euh, fan yële ta am na ay nit yu yëkkati seen kàddu naan gis nañ ko fii gis nañ ko fële mhm. ñoom ay mbokkam nee nañu ba fii ñuy waxal ñi amul benn firnde boo xamante ne jot nañ ko ci xaalis ba réer léegi gisuñu ko fenn dégguñ ci lenn. Mhm. maanaam daal ba mu demee léegi dégguñ ci amuñ ci benn nouvelle loolu moom képp ku ko wax nee nañ bu xibaar yu wër nee nañu nekk la ministre Aly Ngouille Ndiaye ministre à l'époque ci nekkoon ministre de l'intérieur. Mhm. defoon na déclaration ne ñoom enquête bi ñu ngi koy wéyal incha allah dinañ ci xar seen tànk tubay taxaw ci te am na piste yoo xam ne ñu ngi koy suivre. xam nga ci diggante bi wàcc na fi am na ku ko remplacé waaye nee nañ bu baax léegi France mhm. daal xëddeen mooy situation bi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku jamono yi jàppal ne daal ay mbokkam ñi nga xamante ne kàddu yi mm-hmm. ñu jëlee ci ñoom nee nañu amuñ ci benn firnde ba léegi gisaguñ ko dégguñu it ku ko gis kenn yoru ko palte kenn yoru ko ndax qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka min man tasha nguur yàllaa ko yor moo koy jox ku ko neex kon nañu sellalaat parce que am na ci ñoo xam ne boo demee ci ñoom li ñu lay laaj mooy sacrifice am na ku lay laaj sa doom am na koy laaj sa baaraam ku lay laaj xale bu feragul ku lay laaj deretu mbërëg oh. ku lay laaj ku lay laaj ku laaj te yooyu yëpp bokk na ci sacrifice yi nga xam ne seetaane yi sacrifice am na koo xam ne dafa bëgg téléphone du noppi kooku am na benn xeet boo xam ne moom lay wird hmm. moom lay wird mooy téléphone noppi mooy chaque instant si ngay am buzz ak ah. actuellement te relation yëpp mi ngi ci téléphone hmm. loolu dafa am loo xam ne moom ngay bind ak looy wird boole ko ak bakkanu bukki boole ko ak deru tama ak yeneen yi nga xam ne moom ngay booleel daal di ko ciy def mu nekk <laughs> ay mbir yoo xam ne baara ba lu duggoon ci yooyu madaaxilu seytaan fi seytaane di jàppee doomu aadama di ko fiir di ko fiir di ko fiir ba ànd ak moom dugg safara ndax yàlla wax nañu ne innama yad'u xisbahu li yakunu min ashaabi saxir nee na képp ko allié ak moom ne daf lay woo pour nga wettali ko biir safara kon ngalawaay nañu wuuteeg seytaane mhm. xam ne yàlla pare na pare na dem am dikk ba ba nga amee xool cent vingt jours la yàlla wax ne dat sàngam ba dat sàngam di nga nekk Walfadjri dat sàngam ba dat sàngam di nga nekk hôtesse dat ba dat sàngam di nga nekk président dat sàngam ba dat sàngam di nga nekk xalifa général hmm. ndax am nañu judd ci Mbàkke wala ci si yàlla bindul nañ nekk xalifa duñ ko nekk kon bu doon ñaan ak ay pexe ak ay wilaaya ak jaamu yàlla ñu doon hmm. ko mais yàlla mooy dogal te ku mu dogal lu mu la dogal lu ne doyloo ko boo ko defee dañuy doy di tabarkàlla Oustaz Seyd Diallo Mass est-ce que parce que jamono yooyu ñuy wax jamono élection est-ce que ñi di wax ay waxu sacrifice est nekkul ci wàllu ña fa ña fa des ci wàllu woowu ñoom ñoo jël xale beeg yooyu mhm. est nit tam mënul toog xam ne xaaral ah, balaa may def li may def ma bàyyi ba période élection bu ko defee ñu jiñ ko ñooñee te fekk mhm. ñoom laa ñu si dara caba mhm. euh, hmm. xam nga réew mi moo toj Sénégal est-ce que du mujjub jamono la ñu nekk. mujjub jamono la ñu nekk apocalypse ak lu zaman mais bu doon caayee ñor ga dagg na. yaa caba xam nga nit ñi dañu gëmatul yàlla. ay ñi la majeure partie ak ña ko sañ a wax. parce que il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. mais dafa am ma bëgg expliquer caba mooy bu ñu demee ba alal jaral ñu tey jii ñu téye doomu jàmbur bu ñu demee ba tey ut koom àdduna jaral nga jël doomu jàmbur xamoo ndax da nga ko sacrifier xamoo ndax da nga koo téye noot xamoo ndax trafic d'organe lu ne mën na ci nekk mais li gën a garaaw caba mooy di nga gis jigéen boo xamante ne caba dana no nekk baara jigéen ji toog amul doom amul doom bëgg doom loolu gis xale bu génn ci buntu kër gi di jënd tàngal wala mu tàngal noo tudd naa nga mën a ko cas yóbbu pour lan bu demee dëpp xel mi ndegam magum jëmm léegi après ne moom moo ko jur baara laa bëgg waxal ah bu dee xam nga baara dafa wax sànq ne xale bi moo fa téye boppam wala mën naa moo si mën a génne boppam moo ci mën a génne boppam mais baara hmm. man mii punkal mu toll nii ma mën nan maa naawtal du ma xam ne du ma xamati lu lu xew. sa xel la ñuy yóbbu asama xale bu ndaw. cey am nañu capable ci réew mi ñoo xamante ne tey jii gë maanaam. dañuy détourné xel bi daal lu ne lu jàll nañ lu ne. jaba gëmuñu yàlla gëmuñu yonente ba. xooluñ lu baax defuñ lu baax. waaye tamit nag nañu fàtte benn bés. Mhm. bés penc balay bés penc sax ba bàmmeel. dana ñëw de tëraayu bàmmeel lépp lu waay di def ci àdduna rek war nga cee xool suñu borom. Mhm. xool na yow tey ji ëllëg bu doon sa njaboot est-ce que di ko def waaye nag état am ci responsabilité bu rëy mooy gis nga tey ji que ça soit muy xale bu sant Mbàkke bu sant Puy bu sant Dem bu sant Mbuub bu sant. nu mu mën di sant mu mën a sant. Mm. doomi réew mi la képp koo xamante ne réer na état war na ci jël. def ci mm-hmm. ay gëstu yu xóot. Mm-hmm. nan ñu def tey jii ba génn ay arme blanche université. Hmm. na ñu def tey jii ba ba fex ñi jaay jaay yàmbaa jàpp leen. ak ba ñu fexe ba xool ñi fëkk ndaw ñi du yóbbu. Hmm. ca ba ñu nit leen. ba xam ñan lañu ñu teg leen ci yoon. Hmm. beneen bi mooy. pour jeexal foofu waaw pour jeexal foofu. ca ba nag réew mi nag moom fu naa fu mu doon moom farankulaay na. ah ah fépp metti ñu bëgg tawaaf. jumaay Tuubaa man moom laa comprendre. <laughs> wax nit xam nga man moo tax sax dafa wax lu am solo. muy mujj jamono bi ñu nekk. mujj jamono wax na sëñ Modou Karago ñoo ñu weddi.

maa sama yaay rek man moo ma tooñ parce dama ko doon si wàllu woowu dafa ragal xeetu piqûre ah di nga ñàkku dama ragal piqûre ah, mais nag bu bu laajee ñàkku ma ñàkku loolu dara yàlla baax nañ tàggatoo bu jeex na tàgg ah, ba suba ak jàmm may ma jigéen ma jigéen bor bokk si takku show bu El Hadj Sa Ndiogou Meng moom mi ma cappa-cappal ba ma xaw a neex xool kon euh, jàppale na balance dina am euh, moom euh, Assane Diouf ndeysaan yoon teg na ko loxo guy Mari Sagna itam